تهيبني تمكين ورضا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يلقى المسلمون الفوز والرضا mbokki jullit yu tedd fi daje ci dëkk bu tedd bu sell bi di Sidibou ñii daje fi dëkk fi ñii dajee fi dikk fi bàyyee ko ci ay gox yu fasantikoo ak ci ay palaas yu wuute ci diggante ay góor ak i jigéen ëmb ay mag ak i ndaw boole ay xarit ak i soppe dajale ay wëllëre ak i bokk làmboo ay boromi xam-xam ak i ay doomu soxna ak i ay notable yéen ñëpp ci seen tur ci seen sant ci seen jëmm laay tibbee ci sama xol nuyoo bi gën a tedd gën a sell gën a yell jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi ci ngoon gu barkeel gi ci guddi gu sell gi nga xam ne mooy sangi guddi semaine bi yëpp di laylatul jumaa nga xam ne bu jotee yërmande day wàcc ba ci asamaan si tiim ñu yàlla di wax ne ana kuy jéggalu mooy ñaan ma may ko di guddi goo xam ne lépp lu nit julli ci yonantu bi alayhi wa sallam ci yonantu bi amul intermédiaire ci diggante moom ak kon bu ñu yàlla tànnalee guddi googu ñu dajee ci bi ci jotaay bu bi ñu ngi nuyu nuyoo aljana ci aljana muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nuyoo bi nag maa ngi ci jiital ñu yàlla jiital ci diine ji jiital leen ci jotaay yu mel nii ñu nekk ambassadeur yàlla ci diine ji nekk kuutaayu sayyiduna muhammad ci xeet yi wa sallam buñ ko waxee mooy aima yi mbooleem ilimaan yu nekk ci gox bi yëpp dajee fi tey maa jël di ko teg ci loxol imam dëkk bi ya imam muhammad ya ñaanal ko yalla ya xale la yalla ya def ko mak yalla ya dëgëral ko yalla sam ko ba néegam yàlla bi ni pose première pierre bi yalla na yalla matal ko ci kanamam matal ko ci suñ kanam ñun ñëpp ñu fekkee ko mu di ko jiite ba mu ràpp yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def su ma ko nuyoo nuyu naa borom dëkk tabaarakallaahu Amadou Wade jéey ñaanal ko yàlla lépp luy càkkuteefu dëkk bi yàlla na ko ko yàlla defal ci ak ayem yàlla jàppalal bi gën a tasaaroo ci dëkk bi yàlla jàppalal fi yoon yàlla jàppalal nekkinu naw yi ak nekk ni soxna yi gën a baax lépp lalu ci tedd nga ak ci xéewal ak ci wërsëg ak ci yokkute moo xam doomu dëkk bi nekk ci biir dëkk bi ak doomu dëkk bi nga xam ne dañoo tukki di wuti luñ terale seen waajur yi yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def di nuyu doomu soxna yi doomu soxna yi suñu ci tuddee sëtëb xaadimu rasul si Ahmad Bamba bi toog tabaarakallaahu sëriñ Moustapha Basir Ndiaye bàyyi ko ba Touba dana mën a yóbbuwaale doomu soxna yi fi teew yépp ndax sëtëb xaadimu rasul mën naa wuutu ngooleem sëtu kilifa diine nuyu suñu xarit suñu soppe rafetlu lool njàngaleem ak xam ak taxawaayam ak fullaam di al muallim Cheikh Tidiane Wade suñ ko nuyoo nuyoom dañ koy teg ci kii nga xam ne tey fi représenté mat ko sëkk ndaw ni nga keroog bañ fay dem moom mii lañ fa fekkoon muy Serigne Sarr ñu koy ñaanal moom tamit yàlla dëgëral ko te yàggal ko ak Serigne bi yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na yàlla def nuyu suñu mbokk mu baax mi di mbokkam ñëpp rek suñu xarit bi di xaritam ñëpp suñu soppe bi di soppeem ñëpp tabaarakallaahu xaji Mor Fall yaakaar naa ku ñëw ci dëkk bi nuyu ko moom kenn sax dëkk bi yëpp dañ la may ngànt ne nuyu ndax góorgóorlu ba man say bokk ci kam xam man say bokk ci wërsëg baax na lool mais am na lu ko gën lu gën mooy fexe ba maneen ñoom soo manee soo manee say bokk te maneewoo ak ñoom sa dund du neex waaye boo góorgóorloo ba manee say bokk doonte manoo leen sa dund neex moom nag alhamdulilahi rabbil alamina yàlla may na ko ba manee na ak ay bokkam manee googu yàlla na ko yàlla saxal manee googu yàlla na ko yàlla saxal su ko defee kon ñu ngi koy nuyu ci biiri ay bokkam di ko sant ci biiri ay bokkam ndax ñun amuñu lu gën a rëy alquran dañoo fas yéene takk suñu ndigg jël suñuy nos ko jébbal ko alquran alquran jooju nag ñiy yëngatu ci wàllu daara ku la ci jàppale rek jàpp la dafay def ay ay yu baax andi ko may ko ndongo daara yi ci daara ja nekk Kaffrine li ko Oustaz Babacar mii nga doon sàkku moom moo yore école boobu ma def nga xam ñeenti téeméeri nit ñu ngi mooy ilimaanu jumaa dañ fa def mooy mudiru madrasa bi nga xam ne dañ ko fa def muy jàngal xale yi ba am bac nga xam ne niveau bi ñu am ci arabia niveau bu toll noonu la am ci France ci France ñu boole ñaari njàng yi te loolu mooy li xew waaye léeg nga gis ku jàng ba nekk intellectuel yore poste gën a kawe te boo ko laajee farata njàpp xam ko loolu dañ ko bëri ñun nag ñi bëgg a tabaxaat beneen ségrégation boo xam ne xale yi danañ jàng ba li war a xam ci français dañ ko xam mais lu tere li war a xam ci seen diine dañ ko xam moom mii nag moo ñu ci jàppale yàlla di ko sagal école boobu tey ñu jël teg ko ci loxoom at mu jot mille élèves moo koy gañe foofa ci kaf lu ko wër ba Koungheul kon moom am na taxawaay bu rafet di borom xam bi jub comme ni Oustaz Moussa Thiam mi jàppaleen ci madaaris yi nekk alkaatibul am kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant ñëpp mu mel ni nag juma yàlla koy sàkku ci barab mais nekkul ni da koy sàkku ci barab foo gis jàkka taxaw fa ci dëkk wala néegam yàlla di jumaa taxaw fa taxawoon na fa lu jiitu loola mais nit ñi ko jumaa yëpp ñi ngi soqee ko ci maam Ibrahima bi mu tabaxee Kaaba gi ba Kaaba gi pare moom ak doomam mu des garaawaay bi mu laaj yàlla fan laa tuuri yàlla ne ko tuurloowu ma la dara dagale ko rek tagawan ko gannaaw mu dagale ko wan ko gannaaw bi demee ba guddi gi sori suuf sedd yàlla yebal malaaka yi ñi yenu garawaay ba sànni ko ci àdduna bi tasaare ko fu mool bu mag dal balaa àdduna bee tukki jumaa dana fa am fépp fu mool bu ndaw dal muy xeer balaa àdduna bee tukki jàkka dana fa am looloo waral jàkka yi ak jumaa yi di jël kot ci kaabatal musarraf boo koy rëdd rek nga ne waaw ana fan mooy ndax seen cosaan la moo doon kaaba ga moo tax kaaba gi moo leen di jox kon moo tax kon fépp fu jumaam rek fekk na yàlla dogaloon na ko bu yàgg yàlla dogaloon na fii xeeru ndaw dal la ñu ngi nii julli nañ fi ay yoon waaye tamit alhamdulilah rabbil alamin incha allah xeeru mag dal na fi tey pose nañ première pierre bi pour néegam yàlla bi jumaa ji yàlla nañu ko yàlla tabaxal te nu gën a gaawee tabaxal ñu ko te nu gën a jàppandee bu fekkee ko ànd ak salaama ak ranima yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def mawdu bi nag yéen a ko tànn muy dawrul islam wala dawrul mar'a fil islam aw daw aw dawrul dawrul mar'a fil mujtama lan mooy rolu jigéen bi mu war a suyee ci l'islam wala ban lan mooy rolam bi mu war a suy ci bi loolu tam bu am am ndax jigéen ci boppam mooy genn wàllu société bi jigéen boo gis mat na juróom-ñaar jigéen boo gis mat na juróom-ñaar jigéen mat na yaay mat na doom mat na bàjjan mat na tante mat na soxna mat na maam mat na jabar jigéen boo gis rek juróom ñaar yi la ko yalla defé ci société bi fi tay jigéen ñi dajee fi boobu taxawoon ana ñen ñoy yaaya ya? dana am ñu yëkkati seen loxo bo ne woon ana ñen ñoy soxna yi dana am ñu yëkkati seen loxo so ne ana ñen ñoy doom yi dana am ñu yëkkati seen loxo boo ne ma ana ñu ma fiy tant wala ñu fi bàjjan wala ñu fiy maam danaa ñu def ci bopp motax kon jigen moy genn walu society te yalla day dogal ci dogalam rew mo dem ak dekk bo dem ak département bo dem jigen ñaa ak goor jigen ñi lu and mu def ku ñu ànd ak nga def ku ñu wan gannaaw nga échec lolu len yalla def moo tax recensement bu mujj bi ma dégg ñu ne góor ñi jigéen ñi dama xaw a tiit ñi ma gën a tiital nag mooy ñu yore seen si jabar ma ne bu ngeen defoo gaaw dem profité wu tiwaat balaa balaa jigéen ñi jeex waaw bu ñu demee ba jigéen ñi ëpp góor ñi loolu moom tiitaange gu rëy la waaye recensement bari xam ngeen ne jigéen ñi ñoo ëppoon góor ñi lu bëree bëri kon bu ñu ne recensement bu mujj bi jigéen ñi ëpp góor ñi loolu ñor naa seetaat góor ñi ëpp jigéen ñi ko loolu jar na seetaat bu rëy jigéen ku tedd la jigéen ku foor la yàlla dafa xoolee jigéen muy jamaa moo tax foo fekk rek dafa koy sant ko muurul ndax xam nga da nga gis marchandise mu ne ñu koy saam ci mbedd di ko jaay mais jamaa kenn du ko saam ci mbedd dañ koy sécuriser ni mu gën a amee sécurité lañ koy def fu ñu gën a wóolu ne fii la sécurité bi rek foofu jamaa di nekk loolu tax moo tax tamit yàlla dafa jàppee yaramu jigéen muy jamaa te ko muur ko bu dara feeñ ci sa xar ak lu dul say jati téex ne jigéen mooy université mooy former doom jëlee ko ci fi muy nampee ba yóbbu ko ci fi muy nampale ku la jëlee fi ngay nampee di la ba nga xëy mën a nampale ci sa xam ma mën nampale ci sa wërsëg mën a nampale ci sa sa situation loola lu rëy rëy jigéen a nampal ndaw ba kam doon nampal mu ngi di nampal moo tax kon al umu madrasatu ida adata adata shaban tayibal alam kon jigéen lu tedd la jigéen mooy loo xam ne rawatina buy yaay nga baaxle ko moo ëpp sens ci doom mu baaxle baay am baay du baax juy fanaane arsh taxut a dem waaye lii tax a dem pire am yaay du baax yaay du baax moo gën foof baay du baax lu sa baay baax baax bu sa yaay baaxu doo am résultat moo tax yàlla di julli yaay waaye di julli bàyyi yaay la julli ne wal baladu tayyib yaxruju nabaatuhu bi idni rabbi walladi xabusa laa yaxruju illa naqi mu yaay ju moo mën a joxe résultat doom ju baax waaye yaay ju bon résultat wu doom ju rek la mën a joxe waaye waxul fenn ci alquran ne baay ju moo mooy joxe résultat wu doom ju baax yaay du bax rek bu sa bay bu sa bay baxé yeexal téré yépp makama gaay yalla yépp garaat yemu takk ko ta sa yaay baxul doom ju bon rek mo cay soppé ko waaye bo amé yaay ju baax doonte bay ju nan sanga di tu di taxawalu mo nga am du téré bu doom bu doom magé rek teg ñëpp xam ne ci yaayam sa yottu li seen yaay sëy kenn du ko laajte waaye toog ci mbedd naan fëgg sama dënn man sama yaay kay sëy na bay bëgg a dee sama baay gërëm na ko rëy làmmi nekk la ku sa yaay sëy ba baayam gërëm ko ku la gis rek xam ko ci yow moo kon jigéen ñi am ngeen sasu rëy yàlla leen nattu ngeen bokk ak benn liggéey muy benn société yéen ak seen jëkkër te société booba bu yàqoo ñu jiiñ leen ko bu baaxee sax baay ja moomale ko boppam ndax baay yu bari tiitaru rek dëkk boo dem boo fa yàggee dib sëriñ wala nga nekk fa di ab politicien wala nga nekk fa nekk borom ndomba tànk wala borom garab dana am ku ku wommat doomam ñëw ba ci yow ne laa sëñ bi ñaanal ma kii mooy sama taaw ma nga ko yéex na ko waaye ba muy naqari rek yaayee taxaw góor gu ne tey bu delloon këram fekk doomam yàq boppam lu muy wax ana yaay bi kaay defal sa doom bi lu wax kaay defal suñ doom bi de defalal sa doom bi lay wax bu yëree tilimee mu war koo sensé day wax ne ko kaay sensé sa yëree doom bi bu xiifee mu ne ko kaay jox ñam sa doom bi bu maree mu ne ko kaay jox ndox sa doom bi buñ bokkoon benn lal tëdd sax bu doom jooyee bàyyi dafay wëlbatiku wax yaay ne ko naxal sa doom ci waaye bu doon màggee ba mën a jënd saako ceeb mën a jënd xaram tabaski bàyyi commencé ci dëgg suñu aadi ji mooy sama taaw ma ne ko dama ko yéexoo kon bu naqaree rek yaayee tax waaye bu neexee rek bàyyi doon commencé fii tam kon yaay yi góorgóorlu de li ma wax ni yëpp yonent bi da ko tënk ci xadis bu gàtt sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne góor gu respecté jabaram wala mu respecté yaayam wala mu respecté doomam du njaalo ndax jigéen dafa man lii yëpp mu góor goo xam ne bañ na ku njaaloo jabar warul njaaloo jabari jàmbur góor gu bañ ku njaaloo doomam warta njaaloo doomi jàmbur góor gu bañ ku njaaloo yaayam warta njaaloo yaayi jàmbur ndax kii ngay njaaloo nekk na yaayi jàmbur ba pare wala pare na ngir nekk ko nekk na jabari jàmbur ba pare wala pare na ngir nekk ko nekk na moom doom jàmbur moom ba pare moo tax nag saa yooyu njaaloo ngir rek bàyyee xel nga génneeku ñett yi taxaw ci sa kanam ci sa yaay ci sa doom ci sa soxna moo tax sax boo fegoo ba doo njaaloo yàlla dafa lay may soxna yu fegu ba duñ njaaloo. rifu tarif nisaahu yéen a tuddee ko fegu leen bu ngeen fegoo rek seen jabar yi fegu waaye boo nekkee góor guy jaay sa bopp jëratul laaj ndax sa jabar day jaay bopp moom biir la nga ne la nekk rek la nga ne rek la ne yonent bi ko jàngale moo gën a xam ñëpp àdduna ifu taif nisaakum fegu leen bu ngeen fegoo seen jabar yi fegu bu ngeen feguwul leen a fexe ba seen jabar yi fegu kon jigéen lu tedd la jigéen lu foor la waaye boo jëlee ci alquran génn jigéen rek la yàlla tudd téeréem yàlla du benn jigéen rek ci am kese jigéen googa doy na référence jigéen nga jot jot doy na doy na roy téef ci képp ku bëgg a baax di jigéen boo ko roy rek baax alquran kat li téere bi rëy rëy benn jigéen nga tudd mooy sayyidatuna Maryam kese tudd na turam tudd na tuddee na ko saar ci cent quatorze saar yi ci alquran amna ci sa yooyu bu ci tuddu suratu Maryama Maryama ak boppam tamit turam ñëw na ci alquran waye ba alquran jeex do dootoo gisati ben turu jigéen ku dul sayyidatuna Maryam ñaarel bi timit junj ñent ñeenti jigéen ñaar ñi dañoo bon lool ba jéggi dayoo ba actuellement may waxal yow sañ ci nga safa ay yoonu ñu leen doon géej mo tax nga am jëkkër ju baax. te baaxoo du la jëriñ dara am sëriñ bu baax te baaxoo du la jëriñ dara am baay bu baax te baaxoo du la jëriñ dara moo tax ñaari yonantu denc nañuy soxna seen ñaari soxna yépp kay ña nga safara kenn ki mooy yonantu yàlla Luut kenn ki mooy yonantu yàlla Noox ki jabaram moo jiite woon lu bi góor jigéen ñi lu bon la yonentu yàlla Luut ci xeetam ci la góor jigéen njëkk a am jabaram dem jiite loolu wax daal bu ngeen gisee ma taal saxaar ci bëccëg loolu signe la buy tekki sama jëkkër am na ay gan yu góor ñëw leen ngeen sàkku su ngeen gisee ma taal safara ngeen xool falaam bi ci guddi gi leen sama kër sama jëkkër am na gan yu góor ngeen sàkku leen te pourtant ab yoon doo koy denc waaye tey ma nga safar ku ñaareel ke mooy yonentu yàlla noox nit ku baax ku sonn ci bu wate def lu ëpp junney ak ci nu bootoom def na ko ci junney ak moom mooy at yu rek maanaam junney ak la def ci nu bootu juróom juróom-ñeent fukk yaag juróom fukk yëpp juróom juróom fukk yëpp a naqari moom daal Alquran ne fa labisa fiihim alfa sanatin illa xamsiina aama mooy junne yaa yëpp a naqari mooy juróom fukk yu mujj ya waa avant yàlla di ko yoone ñaata at la am bëri na werante kon ànd ak li muy yàgg nii yëpp ci mu bëggatu quatre-vingts militants la am juróom-ñetti fukk yi ñoo ko def juróom-ñeenti cycle ak genn wàll ci saw nit juróom-ñetti juróom-ñetti fukki militants nga am quatre-vingts militants moo mu mu mu jëfandikoo mu daare wax wa muy laahi biir rek uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum muy tegtal tajaddud ak istibrariya yàgg gaa tax mais wut mi yàggul moom dafa dafa andi ismu faay rek wa ana nasixun amin yonentu yàlla saalihu yàggut wa nasaxtu lakum moom la wax andi fi'l ak faa'il waaye mais moom ma gën ca yàgg moom moo li mu daayoo sax naa fi di leen laayi biir juróom-ñeenti seekal ak juróom ak ak genn wàll sama yaakaar tas na ci yéen xam naa ne yéen du ngeen baax lu nar a soqeekoo ci yéen sax du baax waaye kooka ndeysaanam soxnaam jàmb ko bokk ca ñu bon wér di ko wan ko gannaaw ma nga safar wa daraba llahu mathalan lilladina kafaru mraata nuuxi wa mraata luutin kaanata taxta abdayni min ibadina saalixayni fa xaanataahuma falam yughniya anhumaa mina llaahi shay mina llaahi shay an wa qiila udxulaa maa daaqili ko mu koy waxee ba mu jeex mu ne tàbbi leen yéen ñaar àndal ñu dugg safara kon ba aaya jay jeex suratu Tahriim wala wala ko fekk mu tuddaal ñaari jigéen ñu baax kenn ki ki gën a bon ci nit ñi gën a yées di suñ mbokkam nit ku ñuul moo ko doon denc muy Firawna képp kuy ut ku bon boo dajee Firawna rek mën ngaa def mooy ki njëkk a samp li ñuy tuddee par parloo ci wàllu paas ku ànd ak moom mu jekkal la ku àndut ak moom mu jekkali la Firawna ko njëkk a jëmbal fi ku ànd ak moom loo def génn ca ku àndut ak moom loo deful sax boo ca génn waxuma loo def ci lii la ne firawna ala fil ard wa jaala ahlaha chian ñii mu jël leen di leen torturer ci kaso yi ñii mu jël leen di leen rey seeni bakkan ñii mu def leen ay jaam di leen liggéeyloo loolu ci la firawna nekk def na ci pouvoir lu mat parce que ñeenti téeméeri at yàlla jaay ko rek waaye yàlla moo noonu bu la bëggee bu la bëggee duma duma yu tar dafa la fi yàggal ci ngox bu ko defee boo lëggee nga gën a mën a nga nga méritoo duma yim la bàyyiloon kat duma yem la doon dencal waaye ku fi yàggul ñaareel te foofu caay-caay bu jéggi dayo sa sa mbugal mën naa woyof ndax yàlla saa yu la bëggee daane dafa la yëkkati hmm. nag lu mu gën a yëkkati boo rek jël gën a métti parce que boo yëkkatee yëkkati yëkkati ba ñëpp séen ko mu door ko daane te ba ko daane jël ba rëy lool firaaw na moom moo doon denc sayyidatuna Asiya muy soxna su baax yàlla teralee soxna si firaaw na yàlla dafa doxal ay la sàkkaru su tuuti la am mënul booloo mosta am rapport ak soxna si moo tax soxna soosa bu yowmal qiyaama ëllëg ci aljana dafay bokk ci soxnaay Seydina Muhammad ki doon firaaw nay denc yonent bi ko denc xëy ci aljana moo tax boo demee ci borom xam-xam ñu ne ñeenti jigéen a gën ci àdduna bi yëpp Sayyidatuna Fatima Sayyidatuna Khadija Sayyidatuna Maryama Sayyidatuna Asiya ñu ne waaw ñii nag ku ci gën ñu ne Asiyatu gën lu tax ñu ne Asiyatu mooy ki baaxee fi ñëpp bonee fi ñëpp bonee ku fa baaxee kenn gën kër firaaw ku fa baaxee kenn gënul ñii de sayyidatuna Maryama gën sayyidatuna Maryama lu tax ñeenti ñi moom kenn kese moo ci am doom ji yonantu ndax moo meññ sayyiduna Isa ñi ne déedéet sayyidatuna Xadijatoo gën ndax bi ñëpp weddee yonantu bi moom mooy ki ko gëm njëkk koo gëm jox ko boppam jël alalam lépp jox ko soppeeku ak jaam ci kanamam. keroog bañ ko jébbalee yoon bi dafa wax ne ko mënuma fee moom ñi may moom lii jaamam xadijatu la lii aw fasam la lii nagam la lii këram la li ma moomoon lépp bis ni ki tey jébbal naa la ko maag ñoom ñëpp yaa ñu bokk moom kooku kenn ko imaamu Maalik ne daal ngëneel yi ngeen wax ci ñii ñëpp sayyidatuna Fatima am na ko te Fatimatu am na ngëneel lu kenn amul ndax moom kenn moo ci am darajaay Seyduna Muhammad jur ko doomi yoon du kenn du ko kenn moo tax moom dafa ne ñeenti jigéen ñi alquran tudd ki ci gën mooy Seydatuna Fatima mooy ñeenti jigéen ñi yonent bi dañoo gën ci mboolem jigéen al kumulu min rijaali kathirun walam yakun min nisaa ila arbaa ila arbaa jooja nag ñeenti ñii la ñeenti ñii nag ka gën dañ ne mooy Seydatuna Fatima moom kenn rek moo ci am méritu Seyduna Muhammad weñu ko te mu juddu gannaaw nu mu wëtu ko Faatimatu mooy tekki aji fer yonent bi tuddee na ko ndax dañ koo feral ci safara mu nekk sang lool yàlla may ko jëkkër ju néew doole Seydina Aliou lañ ko may Aliou sax bañ ko koy may maanaam li mu waroon a caree Sayyidatuna Fatima sax amu ko jaasim la mujj di jaay ba Ousmane a ko jël jënd ko ba pare may ko njëkk loola ci la jël keneen Sayyidatuna Fatima keroog bañ ko ko jébbal xam nga ci ñoom ñaar liñ maanaam fi fi fi fiñ mooy benn derat xaram tabaski ci lañ tëdd ñoom ñaar lu mat la booba lal amul ayaa sax amul mais derat derat tabaski mu Seydina Aliyu tabaski woon der booba ñu dénd ko ci lañ tëdd ñoom ñaar ci la wéeteeg moom ñaam benn jox leen benn mbàjj boo xam ne bu muuree seen bopp yi seen tànk yi feeñ buñ buñ seen tànk yi seen bopp yi feeñ kër ga métti woon na ba Sayyidatuna Fatima fay dem fekk Sayyiduna Muhammad ci kër da ko jox ma ci maa ngi bëgg a dee ngir sot maa ngi bëgg a dee ngir wallu maa ngi bëgg a dee ngir tomb ci la ñetti baat ne ko boo demee bay tëdd dee ko wax bii dee ko wax fanweer yoon ak ñett bii nga wax ko fanweer yoon ñett ñeent Eh, boo ko saxooyee yàlla dana la jox njaboot bu barke waaye yaakaar naa ne eh, Seydatuna Fatima njabootam nga barke na de moo mel ni Seydou moo mel ni Seydina Hasan moo moo mel ni mu Hasin sura faawu yëpp koo ca dàq moo xam ne Abdul Qadir Jaylaani la moo xam ne Cheikh na Tijaani la moo xam ni génnee fulul ñoom ñaar lépp ñu ngi sokkee ko ci Seydina Fatima ak Seydina Aliou lu ko may loola sëy bu barke kon koo xam ne yaa ngi sëy koo xam ne sa sa borom sa sa papa moo yilif ñu ndeef yëpp ñëpp nekk ci gannaaw déggal ko loolu léegi nga ne yaay doomu président ñu may la koo xam ne boo añee doo reer boo reeree doo ndékki yow ci sa boo toggul doo lekk boo sokkul doo togg boo walut doo togg lépp nga jaay ko njureel ga ak dara ja jende ko ngir sëy bu barke yalla may ko doom yu baax sëy amul crise lo ca def mu fekk lo ca def mu fekk ak bu ni gor gor leen bu baax a baax a baax sëy def na asiyatu moomu di sëy kër fir'auna kàccoor bu bon ko baña a ànd ak Firawna ci mbonam ga dem gëm yonentu yalla musa fir'auna dugal ko kasso di ko mbugal di ko torturé def na ko ko قلنا ربي نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين بمو جي يالله جيل بكرا مو ген ديم الجنه دي قال سيدنا محمد يا رب سيدتنا قد جت ген ادنا يونت بي داكو كو وانيكو ديمال الجنه nga خارالما تا بو ديمي نان من نويول سمو جيوا مو مان مسوما بولي كان نيار فوكي اتا جروم لا سيد يوم bi nga may denc ñaar fukki at ak juróom nga am ma ànd ak ñaar fukki at ak juróom yu manqué ay weer sa dundoo gi toll ci juróom fukki at yu manqué ay weer man bi may denc ñeent fukki at laa am maa ngi nii di dem àllaaxira am naa juróom benn fukki at ak ñeent yu tege ay weer baata diine la Xadijatu yóbbu àllaaxira boo jëlee diine nga siiful ko mooy tolloog atam ya ndax deel 4 la yaa 10 la nun 50 la muy soixante quatre ans yu teg ay weer moom la yóbbu àllaaxira la ne ko boo demee ni lu ma sa wujj yow asiyatu yàlla may na ma ko ne dana bokk sama soxla yi ëllëg ci aljana loolu dara ju juróoy la ku ko doon dee ci Firawna mu bokk am lépp am doole lool am alal ju dul jeex mais moom jëlul bëtam teg ko ca loola mu jël bëtam teg ko ci mbaax rek mu jël bëtam teg ko ci mbaax yàlla nattu Firawna ba nim jenn aduna musta am ak moom benn yoon rapport musta am ak moom rapport kon kooka jigéen bu baax a baax la doy ray rey ray teef ci ku bëgg baax ci ku bëgg am diine mana jaamu yalla mana julli mana wor bëgg Seyduna Muusa bañ a ak ca kàccoor bu bon googa mu daan def nekk dictateur bu bon mu ne ko du ma ci ànd ak yow kooku kon ku baax la ku ñeenteel ki mooy sayyidatuna Maryama wax naa la ko alquran tudd na ko tuddee ko saar mu bokk ci jigéen ñi gën a tedd ci jigéen ñi waaye ci am na ci soxna yoo day jaar ci seen tour nii rek day jaar rek ci seeni xissa yow yaay xam ne lii diwa ko moom demee nii ñaari soxnaay sayyiduna Muhammad ya sayyidatuna sayyidatuna Aïcha jigéen gu tedd la sayyidatuna Hafsatu kii sayyiduna Abubakar Abubakar moo ko jur kii sayyiduna Omar a ko jur ñoom ñaar ñu doon mujjee nekk ci rool sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ay boromi xam-xam lu seen borom kër wax rek ñu fexe ko mokkal moo tax mu ci ñoom ñaar solo nga xadis yu limu ci sayyiduna Muhammad ñu ko xel Aysatu moo ëppale moom solo na lu mat ñaari junne xadis ak ñaari téeméer fukk la jëlee ci yonent bi ko xeet moom jigéen boobu mën a firi alquran mokkal ko man koo jàng jàng mu rafet nekk xaleel bu ndaw bañ koy may yonent bi juróom-benni at am bañ ko koy jébbal juróom-ñeenti at la am yonent bi génn àdduna ko mu am fukki at juróom ñett mu dundaat. ba am juróom-benn fukki at ak juróom-benn li ba allahu la dund door a wuyu ji yonent bi ca aljana mos ta góor ci benn la fekk man ta passé noonu dix huit ba soixante six ans yëpp mosoo góor ci ñoom ñett ñu bëggante ñu nekkoon ay wujj yu bëggante ay wujj yoo xam ne dañuy seede wante seede yu rafet wuuteeg li jamono ji xew jamono jii ña ñaareel mu jiwoo laaj moromam bu la ko seedelee rek bu amoon paaka bëgg ko ren te bu jiitu dara dul bokk wërsëg rek kenn ku ci nekk war a wujjee ci jëkkëram ne ko dooma ci man ci mbaax dooma ci man ci nangu koo topp dooma ci man ci nangu koo toppatoo waaye yi yées mooy ci bante ay tànk soxorante liggéeyante di liggéeyante seeni doom kuko def li nga def lepp day kepp ci sa doon bi la kaw waye yonent bi ay soxnam ci seena a mujjee nañ ci bay wante aye ñu bëggante jëlal ko melni sayyidatu na sawdatu bi da ko ci pap mu nekk mag man aye mu ne sama aye gii jël naa ko bis ni ki tey may ko sama wujji wii di sayyidatu na yow yonent bi saa yoo war a aye ci man jéggal naa la jéggal naa ko jëlal sama aye ga nga jox ko sayyidatuna Aïcha yaakaar naa maye aye fala mbaax ya jigéen ñu ko nangu yombul de lu jigéen màgget màgget taal furna dara nga jëma bu ngoon jotee foog mu jéem a taal furna di bare ba mel ni jigéen gëlee demoon tool yéeg ci kaw garab gi daal ñaari tànk ya damm ñaari loxo ya damm ñi yenu yóbbu këram mu ne dugal leen ma sama néeg nijaay maa aya tay kooku ma yaaye ma kooku ma wuñ ma yaaye kon jigéen balaa baax mën a jël ayay may ko wujj foofa la mbaax gis na seen am baax ñoom yeggoon nañ ci gis nañ ne Sayyidatuna Aïcha moo leen ëpp xam-xam moom la yonent bi gën a bëgg ñoom ci seen bopp ku ko gis muy ñëw sax da nga koy tóojal taxaw tóojal ko ba mu romb benn général bu nekk ci biir armée ba mu toog nga door a jug taxaw nga door a toog ñëpp ñoo ko daan defal ba mu mooy Sayyidatuna Hafsatu rek moom kenn moo nangoo toon a tóojal Aïcha Aïssa tuwa ko mom ñew ne ko waaw yow lu tax sa morom yépp di ma tojal buñ ma gisee te yow nangu woo ma tojal mu ne ko lu mu ëppale ba ma lay toojal Aboubacar mo la jur man sayyiduna umar ma jur solo nga ay hadis ci yonent bi solo na ay hadis yu bari ci yonent bi am nga xam-xam man amna naa xam-xam comme nu ma lay tojale mu ne ko tay ma wax la ko mu ne ko bi yalla Muhammad fase sallallahu alaihi wasallam. ñaan naa ko ñaan pour mu fayli la mu bañ bis jot jibril ñëw di ko indil alquran man yàlla daf ma wërsëgalaan ma daan gis jibril comme ni ma lay gisee nii Aïcha daana gis jibril waaye koo gis ñu ne daana gis jibril ci ab saxaabi wala muy saxaabiyatu moo xam jibril la gis wala malaaka balaa génn àdduna dana silmaxa moo tax Aïcha mu jël dundam dafa silmaxa मला आता कुकून दिसलंय किंवा देह आले पण wata to muy génn aduna fekk na bëtam bi mu ngi mu ne ko nag jibril ñëw andil yonent bi waxu fekk maa ngi sàngoog mom ci benn mbacc ma ko jibril dama la yobante ci sama borom ma ngi lay ñaan bo demee nga wax sa borom ne ko na sant yonentoo bi na fay li soxnaam si di sama wujji tamu mu fasewan ko soxna su baax la ku wor la ku mën a naafila la ku mën a joxe ñam la ku mën joxe teraanga moom daal fi ko Aysatu waxee ak fi Jibril ñëwaatee ne yaa ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu maa ahallallaahu laka tabtaghii mardaata azwaajika biir bu gàtt la mu ne ko lii maa ko defal te mosoo koo yëg mu ne kon danaa la tuujal ci la nag foo Hafsatu séenee ko rek jub tuujal ko ba mu toog romb toog mu door kon xam nga wujji wu rafet man ta passé ñu fase sa wujj mënoon ngaa ne waaye ndokk ndax ma gën a yaatu kooku kay nangalawam nangu kooku kay bu ko kenn gisate ci moom dara bëgguma koo dégg sax waaye yow nga sàkku ci yàlla pour mu fay li mu digal yonantoom bi pour mu fay li sa wujj bi yéen ñaar ngeen bokk di ay loolu mbaax mënu ko passé noonu lañ doon nekkee woon kon su ma leen koy nettali damaa bëgg ngeen nekkee ko yéen wujj su ma leen nettali sayyidatuna Maryama sayyidatuna Asiyatu sayyidatuna Hafsatu yëpp damaa bëgg ngeen roy leen ne góor baax na mais jigéen baax te dafa mel ni jamono ji sax jigéen a gën a baax am doom xam nañ ne seen doom jigéen yi yërmande yi am ci ñoom mu ëpp doole yërmande yi seen doom yu doom jigéen ñi ñu mën a seen bàyyi la ñu leen xormaal leen ñu leen fonk lañ ku ci yor jëkkër bu loxoom jotee gannaaw sax maa ngi koy fàttali ne ko waaye dimbale ma lu ma dimbalee sama yaay dimbale ma lu ma dimbalee sama papa ceeb ba jeex na dimbalee sama papa ci nangam ak nangam ak nangam kon jigéen baax na mais góor baax na jigéen góor baax na mais jigéen baax na mais jamono jii fa mel ni jigéen a gën a baax. am jom ñëw leen am yërmande jigéen ñi ci fonk seen waajur yi. ñëw leen rek tabaarakallaahu joxe ndànk te ñeekuwaay am am diine l'islam ji tey ñu bokk adhéré wu ñun ñëpp bu la neexee nga ne jigéen a ci dëkk bi jigéen a ci dëkk bi ah diine ji yonent bi lañ ko jox yonent bi ko gën a jege soxna mu Sayyidatuna Khadija nga xam ne da muy gëm yonent bi sax ba jël boppam di ko ko may jël alalam takk ko ci booba yonent bi yónnee guñ ko dafa am yaakaaroon na rek kii mooy war a nekk mu jógee kon neexul ba neexul mais ki njëkk a gëm yonent bi mooy Sayyidatuna Khadija boo ko jënd gëm wala kenn bi am sallallahu alayhi wa sallam ñaar fukki at ak dundaat naa moom fukki at ak juróom door koo yóbbu kon moom ba muy gëm mu bu woto gën di saalatu gi ñëwagul ci moom ñaareel bi gis nga diine ji ñu nekk bakkanab jigéen moo ci njëkk a faatu bakkanab jigéen moo njëkk a faatu ci diine mooy sayyidatuna Sumayya lañu njëkk a rey ci lislaam rey wu métti rey wu ñaaw te lépp lislaam jaral ko yow nag boo bokkee ci diine joo xam ne te ci njëkk a adhéré wu jigéen la ci njëkk a faat ba kanam jigéen la booy jigéen war ngaa góorgóorlu boobu la kenn man ci diine joo te gis jigéen bu góor jàppee lislaam benn loxo jigéen war na ko jàppee fukki loxo bu lislaam amutoon jigéen day dee ci toroxtaane waaw ba lislaam ñëwagul dañ jigéen di ko jaay ni ñuy jaayee mango di ko jaayee banaana di ko jaayee fruits boo demee ci indi indi maanaam Inde nga dem ñu mel ni Angleterre seen civilisation bokkoon na ci boo yoree jabar marché bi métti mën ngaa dem maa nga tayle ko faj islam ñoo ne loolu arab la loolu mooy seen civilisation ba ci waa grec yi nga xam ne na ci njëkk a civilisé njëkk a civilisé ci àdduna dañ daan jaay seen seen seen seen jabar ko tayle yàlla ñoo gën a yées ñëpp seen mbon yeggoon na ci ku ci am doom bu jigéen nga ne day guddal gàcce benn ma yor ko ñu ëmbal ma yor ko ñu jàpp ko jaam kon dama koy rey rek ci gas ba mu xóol rek nga nga jaleñ ko ci biir suuf si suul ko ba alquran wa idan mawudatu su'ilat bi ay dambin qutilat jigéen ci boppam torox maanaam ni leen arab daan toroxalee jigéen ñi dafa yéen dul fekkoon jigéen day sëy ak sa baay ba génn àdduna baay ji génn àdduna bàyyi fi doom doom ja xool ci tam-tam yi ñu ko ci neex ñëpp mu sëy ak ñoom yaayam rek la sañu ta sëy waaye tam-tam yëpp lay def jabar kum ci nëbb dem jaay ko jël xaalis ba def ko ci islam ñoo araamal lool l'islam dafay ñew jigen mosta doomi jigen dal bu goor gi dee bàyyi alal moo xam doomam la moo xam jëkkëram la moo xam baayam la góor ñaay doonnu alal ya dañ daan wax ne ku ta dem xale war ko doonnu alal l'islam ñoom lirijaal nasibul mak wala nisaay nasib maktasab wasallallahu min fadli suratu nisaa mais ni jigéen amee ni góor amee droit donnu ci alal ni la jigéen amee droit donnu alal léegi nag ñun léeg-léeg nga gis ne waaw jigéen dana donnu mais donnu tool miraas kat yu bari bu ñuy miraas duñu sédd jigéen ñi ci tool yi loolu njuumte ki dee lim bayi lépp ñi bayi ñëpp a ko bokk kenn ku ne foo bëgg a féetoo ñu féetoo la fay ki ne damaa bëgg nag kii ne damaa bëgg xaalis kii ne damaa bëgg kër kii ne damaa bëgg oto nañ ko ko féetale te génnee ko ci cëram waaye jël tool yi jox ko góor ñi xañ ko jigéen ñi dañu soxla ko rawatina jamono joo xam ne góor jigéen ñi fay bay dafa xaraam kii ne lim ba lépp ñim ba ñëpp ko bokk nañ ko den matériel yi muy xaalis kenn ku ne foo bëgg a féete wuñu féete ku bëgg xaalis ñu jox la ku bëgg matériel bu mu mën rek ñu jox la te génnee ko ci sa cër boo waree teg miraaskat ba dana ko am buñ la waree teg miraaskat ba dana ko am waaye jël lii jox ko góor ñi jël lii xañ ko jigéen ñi daganu yàlla dafa ne li ñu war doon ñëpp ko bokk kon dama ne bu jigéen bu lislaam amutoon ba ngeen laaj naan dawrul mar islam jigéen dafa dul tekki dara bay laaj sax la war a taxaw l'islam a tax jigéen nekk nit l'islam a tax jigéen dund l'islam a tax jigéen sañ a tànn jëkkër ko neex ni may ko ko bu njëkk ba dañ daan force jigen ne ko far force nga sañ a diw neex na la nakar na la ba nga ba bolé koy ci jëkkër l'islam ñu la dagal kon jigen ñu gor gor leen ci bu leen fa wax de leen julli fonk sëriñ baax na tertu sëriñ baax na joxe addiya baax na waaye loolu bu ko julli jiituwul amul benn jaay te leen julli képp ku dul julli bis boo dee ba ñu juum ba jullee la takk la sang la sang la seede la suul la wan gannaaw billahi da nga réccu loolu juddoo léeg-léeg jigen ñu bari sàgganee nañ seen diine di leen yewu faja di régler seen portable yi cinq heures mba cinq heures demi ngeen yewu bu laaje sangu ngeen sangu bu laaje japp ngeen japp dem ci jàkka ja fii rek ngay lacc ci réewum naan jigen tax dana def jàkkaam déet kenn duko laaj ma diine mun a wax kenn duko laaj ma ni goor ñu waré dem jakk ngeen war dalé jakk ñëpp mel leen ni ngeen war a mel rek bu ngeen ñëwee taxaw sa gannaaw buñ sërmalee ngeen gaaw ñi waaye kenn du laaj ne jigéen dana dem tool yéen ñëpp di dem tool la ngeen dem jàkk foo ko teg kenn du fi laaj ndax jigéen dana dem tool ñëpp am seeni tool ñii di jaay ndàmbaraas ñii di jaay xawma euh, euh, orange bi ñii di jaay mandri bi ngir luñ am te loolu lépp dafay alimenter sa dund kese soo dee jeex na sa jaamu yàlla gi mooy alimenter sa dund ak barsax yi boo ko boo ko perte foo jëm yéen jigéen ñi dee leen jaamu yàlla te war naa ci yàlla bëri na jigéen ñu bëri mënuñoo sangu mënuñoo sangu te buñ ko laaj kenn léegi leen ñu àndal jëkkër joo xam ne sax moo gën a sàggal xamul dara ci diine jëkkër joo xam ne daal moom bànnee xam rek lay seet ci soxna kese bu ca jeexalee jeexal na ca laaj ko sangu nga laaj ko julli nga laaj ko ca dara yooyu la dem demal jang na am problème lu mën a jaamu yàlla lu yoonu màkka ya bari bëri bëri balaa dem aljana yàlla ne waqifuhum innahum mas'ulun rek la sa digganteeg sa soxna lepp bu fekkee sa te leer na mais seen diggante leerul ci sa taxaway ni jël leppam kepp la ko ngeen bokk def sa li lislaam santaane boo yoree soxna keroog bañ la ko jébbalee bara ngaa wéetak moom nga ko war a laaj waaw yow soxna est-ce que mën ngaa sangu janaba waxal nga dégg est-ce que mën ngaa jàpp est-ce que bala ngaa wéet moom su ko mënul nga ko ko soo ko mënul ngeen dem uti ustaas bu leen ko mën a jàngal yéen ñaar ñëpp waaye bànneexu say dem rek mel ni tey nit ñi ay mala lañ wala ay xar lañ seen yoon nekku ci diine nga nekk ca ba dee amuloo doo fekk sa bàmmeel dara lu ay lëndëm ak ay jaan ak ay ji ñu lay dugal lu ko jàpp jàng leen ni ñuy sangoo jànaba jàng leen ni ñuy jàppee jàng leen bu ngeen rukkaay lu ngeen di wax bu ngeen lu ngeen di wax bu ngeen di lu ngeen di wax sàmm yi xam ko góorgóorlu ci bu baax jigéen ñi lu ci nit màgget màgget ma ngay wax sax li ñu yore whatsapp bi rek di whatsapp rek ñëpp a xam application koo ci yónnee wéef xam na ko koo ci yónnee orange mooy xam na waaye diine seen yoon nekku ci lu ci gën a bëri sangu mi da ngay mu set ndox moo xam ne caf nga ga kat ga couleur ba dara soppeeku wu ci yow xale bu góor bi may déglu nga raxas loxo yi ci biti ndox ma bo jëlee sa loxo yi dugal ko ci ndox mi man na soppi ndox mi takon kon dootul mën a sangu yonent bi neene sa sa loxo yi xamuñ fu mu fanaan moo sa loxo dang koy raxas ci biti ndox bam mu nga commencé ci sa awra raxas ko bam commencé ci sa jumba ba ci say bët wo kanam mag gannaaw nga raxas le bam ci ndox su paree nga jàpp jàppal benn benn raxas loxo benn galax ndiku benn sorox ndiku benn fiiru ndox mi mu dugg benn wala mu génn benn sël mu benn raxas loxo ba ci conc benn ci ndeyjoor ak càmmooñ bi nga masaa bopp bi koro koro ay nopp jël sa ñaari loxo yi dugal ko ci biir ndox mi tëmbal ko ci téyewu dara nga nga nga jaarale ko ci bopp bi commencé fii ba ci ndong gi mu ñëwaat nga xam ne tur yu nekkoon ci bopp bi yëpp dafay daf écarté woon ci jéeku woon dafay tëju boo jëlee ndox ma sotti ko ci mën ngaa am métti bopp boo xam ne kenn ko mën a faj boo defee noonu nag ba nga xam ne tur yi nga xam ne dafa écarté woon mu gën a tëju nga door a tibb ci sa ñaari loxo yi ndox mi ba mu fees sotti ko ci bopp bi topp ko def ba muy ñetti yoon booba dana tooy xet nga door a xaaj wàll ndeyjoor yóbbuwaale nopp ba ngàmba yóbbuwaale mbagg maag kokkataan ya yóbbuwaale faar ya lupp ya yóbbuwaale yeel ya ba yegg ci say dajoor nga jël càmmooñ bi wàccee ko noona sanguma mat nga door a mottali nag njàpp la ci sa raxas tànkam joor bu paree nga raxas tànkam càmmooñ njàpp la mat sangu la mat jërul ngay dem di jàppiwaat man ngaa dem nga julli direct lii sangu yaakaar naa ne dégg boo yoree ay yére yii yére yii ngeen sol léeg-léeg romb laak yére yu set wecc parfois ba di di di di di maanaam di sàlli pili ba mën di ganaar fekk yére ya set na mais laabu mënta ñu dafa am na ñuy fóotee yére soo yore yére bala nga koy fóot danga dugal ci ndox moo xam ne dara soppeeku ci ndox yére yëpp ngay dugal ndox naqu ko ci di fete di génne di fete di génne su fekkee yére yi am na des nga tuur ndox mooma leendiwaat paan bi indiwaat maneen ndox mu bees door caa dugalaat yeneen yére yu njëkk ya yeneen yére ya ca des nëqaat ko fete ko wañ ko bu paree ba yooyee jeex nag nga door a commencé fóot ci saabu wala ci coton bi nga xamoon mais boo jëlee dugal génne dugal génne ba nga njëkkoon a génne rek mooy bi laab la ca des yëpp bu duggaatee yëpp sobe la te ñu bëri xam ni ñuy fóotee kenn du fóotee noonu kenn du jël yére dugal ci yëpp ngay dugal ndox bu fekkee xaj na ci benn paan bu ci buñ nga xool paan yi xaj yëpp benn bu ci nekk nga dugal leen ca fete génnee tuur door a mu bees na loola mooy am omo ak poto la yeneen yee ci aju mu door a set l'islam diine set la mais l'islam diine laab la laab la gën a yittewoo ci set waaye boo fóoteewul yére nii ak yére yu mën a doon te fekk am na sobe boo jullee amoo julli te waroo jël yére yooyu dugg moom ci biir ci bàyyi xel lii képp ku am rapport ak sa nii nga war a sangoo képp kuy xalil bu góor wala ngay jigéen te dëggeen te am rapport am lu génn ci yow di mëniyu nii nga war a ku génn àdduna nii lañ lay war a sangee ku dugg tuub ci diina ji bees nii lañ koy diggalee mu sangoo ku yore reegal deret ja tagg nii nga war a sangoo ku yore deretu gësin muy am doom deret jóge dem ba dagg jeex man na ñaari weer manqué na ko benn fan la ñetti fan la bul xaar naan damay xaar ba ca kanam demal nga sangoo nii commencé bi lii na ci góorgóorlu ut leen ay sajaada am leen ay satala dee leen julli julli juróom yi dem ci jàkka di julli ci gannaaw imaam bu ngeen naafila ngeen naafila ci seen biir kër ñaa ngi nelaw mu neexee ngeen wax allahu akbar di naafila yore seen kurus di sabbal yàlla boole koog di jéggalu yàlla boole koog di jàng alquran la ngeen ca man boole koog di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ku ko def boo demee da am doom barke boo demee demal jàmm yàlla yàlla defal leen ko baat yi yonent bi joxoon Fatima bi fayee mooy boo demee bay tëdd nga fanweer yon ak ñet walhamdulillah fanweer yon ak ñet wallahu akbar fanweer yon ak ñent yonentu bi neena na ku def bo tedde ci sa lal jàng lii yàlla dana la sotti wërsëg ba sa xol sedd da nga am jam da nga am teranga da nga am doom yu barke da nga guddu fan bo de dem yalla ñu ko yalla ñi mën nañ ko ko boo tëddee daal bulu dul dara su dul nelaw boo tëddee salaat bi rek booy tëdd da ngaa war a astaghfirullah azim alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi ñetti yoon kuy tëdd salaat da ngaa war a jàng lool boo ko waxee seytaane daw na tey awu fu ma fanaan waaye tëdd ci salaat bi rek xaral jàngoo dara musloo dara seytaane ngi ànd ak yow tëdd rek moo yang mulai dem sedd ñëw ngay ngay ngay di buñ salaatoo nga léegi tëddaal rek bala ngaa yow fekk jant bi fenk fekk seytaane mu tëdd ndoor ak yow moo tax boo ne astaghfirullah azim alladi laa ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi ñetti yoon seytaane taw génn kër gi génn néeg bi génn na te kat ku ko def sa yi amoon yu njëkk yu mujj yi ndaw yëpp yàlla jéggal na ko ci ñetti baat yooyu rek yonent bi ko sallallahu alayhi wa sallam su ko defee na nga jàng ñaan gi waaye boo gisee tey ñu bari gént yu métti yi gént yu ñàng yi gént yu doy waar yi ak tëdd ba yeewu saytaane bëri faru rab yi lu ne nekk mooy nit ñi dañuy tëdd tëdd ñu léemu léemu ak am solo nit ki boo demee bay tëdd nelaw rek amatoo sécurité léemu gi nga léemoon moo lay sécuriser yonent bi dafa fonkoon léemu gi ma bëgg leen a wax ba nga xam ne ba mu demee ba feebar man ko defal boppam dafa koy jàng tafle ko ci loxob Sayyidatuna Aïchatu bu ko koy raayal ci bi yépp lan la da ngay jàng benn fatiha qul wallahu ahad benn ikhlas benn nasi benn nga baamuwaat nga baamuwaat ko ikhlas falaqi nasi ikhlas falaqi nasi ikhlas falaqi nasi ba mu ñetti yoon nga tafli ko ci sa loxo yi raay ko ci sa yaram yépp fu jot dara la mën dara ci guddi waaye ñett yi noonu nga koy jàngee da ngay def ixlaas ba def falaqi ba mu def naasi commencé waat ixlaas falaqi naasi commencé waat ixlaas falaqi naasi tafli ko ci say loxo raay ko ci sa yaram bi yonent bi ne mëntu ko defal boppam ngir feebar bi dafa mujj di ko tafli ci loxol Sayyidatuna Aïcha mu ko koy raayal ci yaramam bi yëpp mu door a tudd dañ ko war a xam te di ko def yomb na kon loolu nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax yàlla yàlla defal yal na yàlla defal ñu taysiir yal na yàlla defal ñu barke yal na ñu yàlla xiir ci boppam def ñu dëgg dëgg jullit may ñu mujj bu rafet li may yéene woon pour waxtaanee ko temps bi mayut ma ko coono bi tamit mayut ma ko ku dégg li may waxee rek xam ne kii ku sonn yàlla seeti na ko waaye kii koo mënu ma koy def waaw koo mënu ma koy def waaw koo mënu ma koy def ngir ak mbaaxam yàlla seeti na ko. waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla dimbale ko ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla jàppale ko ci barke yonent bi li may wax ñu sàkkootuñ dara lu dul ci daalay alquran yi loola nag ku ñu cay jàppale duñ la xemale jàpp yàlla xam na loolu la ñu jàppal bi ñu joxe ay garab ñu koy jox ndongo yi ñu koy fajoo te seen doo seen waajur yi ma ko jox seen ndongo yi amuñ lu gënalee seen doom yi seen kii ay ay ay ordonnance te ku feebar tamit yow lañ koy su boobaa kon ku la ci xale yi ñu mën a faju ba wér mana jang jàng seen ko ko ko mën na ko loolu ko ñuy jàppale ko yàlla ko ko yàlla ko yàlla na ko yàlla ko yàlla na ko yàlla ko sëñ Cissé ko yow tamit ko pakala nga ko moom yow ko ko moom ko waajur yi ko nañu wax ko jumaa jooju ko mujj a ko yow fekk ko ne yow ko ba bu ko jaayante ak ko ñi ne ko jël seen ko ko la am def ko ci ñaax ko ñëpp ba ba ba tabax ko boobu nii ko la mujj ko tabax dooru ko suñu ko ngoog ngoog muy laaj addiya jumaa ji am na toujours bu xam ne xam joxoon na ab dërëm dërëm la xam ko bu lay sant bu baax dañ fa sant ko rek incha bi yore daara bi dana may woo am na ku nekk foofu ci dëkk ba parce que lay doon moom dana may woo dañ leen yokk maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ah fii nii waaw incha allah yàlla yàlla jàppale leen di gërëm ñëpp suñu suñu waa ji borom bi Pape moom Ibrahima Samb moom ñoom ñu mel nii korom lañ ci jotaay waaw korom lañ ci jotaay suñu mbokk ma lay turee suñu turee lay nuyu bu baax turee ah kii moom xam naa ko fekk par yore ci moom tamit daara macha allah premier def ak sëñ Saar waaw macha allah. jërëjëf yal na yàlla laaj saa ñu. Mm-hmm. wallaay dëgg la kay daanaa ko jox mu إليه إلا déglu len. ñun ñëpp nañ jàng Fatiha déglu len. ngir yàlla déglu leen nee nañ jàng fatiha alam nasara ñetti yoon nee bu nekk naa nag bisimilah rahmaani rahim waaye déglu leen nee ñu yéene ci yàlla tabaxal ko boppam wan nañ yàlla ne ko teg nañ birig bu njëkk bi wan nañ yàlla ne ko teg nañ birig bu njëkk bi lii rek lañ ci man nee ñun nag lii rek lañ man nee nag li ci des la ko yow yàlla ne yàlla dina ko tabaxal boppam. incha allahu rabbi. nee nu jàng fatiha. ñetti alam nasara. ñetti alam nasara. ñetti salaatal fatihi. ñetti salaatal fatihi. juróom-ñeenti yàlla tiif. juróom-ñeenti yàlla tiif. ñu addeel ko Seydina Muhammad. ñu def ko addee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. teftali ko ci darajaam. teftali ko ci darajaam. yërmandeem. yërmandeem. mbaaxam. mbaaxam. yàlla defal ñu kawe suñu. yàlla defal ñu kawe suñu njort. ñun ñëpp ñu fekkee ko. nee ñun ñëpp yàlla na ko fekkee amin. nee ñu fekkee teg bi nii. nii nu ko fekkee nii. nii ñu ko ak ña ca dëkk ba. ak ña am ngant. ak ñi nga am ngant. ak ñi wéradi. ak ñi wéradi. ak mag ñi sunu baay mag ñi sunu baay yi. yàlla nañu ñu ubbi jumaa ji. yàlla nañu fekkee ñu ubbi jumaa ji. nee mu dund sunu kanam. imaam yàlla na yàlla jiital fii. ubbi tega. fekkee lépp. mu fekkee lépp. taxawee lépp. taxawee lépp. yàlla na ko yàlla def. yàlla na ko yàlla def. Mor Fall mii. nee sëñ Mor Fall nag. docteur Mor Fall mii. nee sabab bi yëpp. nee sabab bi yëpp. moom la nee moom la. ñu koy ñaanal. ku ko ñaanal. ku ko ñaanal. nga dëkk bi. ñaanal nga dëkk dëkk bi. ku ñaanal dëkk bi. ñaanal nga Mor Fall. ñaanal nga Mor Fall. mooy sabab ci lépp. mooy sabab amoon nañu yéene. nee amoon nañu yéene nag. ànd ak ki ñuy jàppale ci jumaa yi. ànd ak ki ci jumaa yi. waxoon nañ ko ko ba pare. waxoon nañ ko ko ba pare. yàlla dogal mu fekk ci tukki yàlla dogal mu fekk ci tukki. mu ne ajjuma lay door a ñëw. mu ne ajjuma lay ñëw. waaye bu ñibbee rek. waaye bu ñibbee. danañ jàpp bés. danañ jàpp bés. moom mu ñëw fi. xool lépp xool lépp. foto ko foto ko. jox ko kilifa yi nga ko kilifa yi nga xam ne. ñooñu jàppale ci ñooñu jàppale ci lii. ndax moom bu ñëwoon fekkee ko. nee moom bu ñëwoon fekkee ko. mbir mi gën a mbir mi gën a gaaw. waaye da koo fekk si tukki. waaye lépp rek. waaye lépp. nañ ko bàyyi ci bàyyi ci dogalab yàlla. yàlla tabax jumaam. yàlla tabax jumaam di. tewu ko de. moo fi tabax lépp. moo tabax lépp. nañ ko bàyyi yàlla rek. bisimilah. fatiha. ñetti alam nasara. ñetti salaatul fatihi. juróom-ñeenti yàlla tif bisimilah. قابل تحرك مشكوه من ألم صم الصخور لنا أياماني أياماني لو قابل تحرك مشكوه من ألم صم الصخور لا لا لا, لا أيام علي أيام علي ولو تقابلهم نيران لن تفضل